di mirador bi di parloir bi di salle de tente bi ci biti ak toilette bi ak chambre bu nga xam ne ah suñu mbokk suñu xarit suñu sëriñ oustaz Iran Ndao moo ko def ndaxte kat réew mi na koo xam ne comme ni ko xamee difficile na te état mu ta def lépp donc ñu tam suñu politique ñu ne kon nag nañ seen mbokk ñoo xam ne ñu ngi suñu wet te mën ñoo dimbale ñu jéem a améliorer condition de tention yii si biir ndax xam ngeen ko ah comme ni ma ko yàgg wax ci temps yële passé lekk bi doy tërin bi tam doy na waar waaye nag yaakaar naa ne boo génnee wax sa jàngoro ji ñu mën leen ko fajal loolu moo tax jàngoro ji ah bañ ko waxee itam ñu bëri jàpp mel ni docteur Ndiaye jàpp na ñoom Iran ku lim sax da ngay juum

accidenté wala ku feebar ñu prison ku fi nekk ku accidenté wala ku def ñu génne ñun mën na fi ñëw def dara ñun mën naa def te tey wala ko koy tey mais ñun ñëpp dañu laaj ndimbal ndimbal nag dafa laaj xaalis bu bëri laaj matériel bu bëri laaj lu bëri mais nag suñ waxee suñ jàngoro yàlla mën naa def ñu dimbali ñu ba lu ñu doon bëggoon ci ñoom ñu am ko ndaxte fii ku bëgg war nañ la préparé boo fi génne dara société du am problème loolu mooy xam ne mooy suñu suñu suñu suñu liggéey loolu la ñuy administration bi sas mais ci loolu nag dañ koy delloo société bi ñaan leen yéen tamit ngeen dimbale ni ah pour que loolu mission bi ñu mën ko def ba ma dàmp la ñuy gërëm nag ñëpp